salaamaaleykum ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant waa Mbour gi yëpp di sant waa Thiès waaw man la ambulance war ba dajee Garga 2 le 11 juin waaw am naa 19 combats nag 3 défaites laa am benn sans verdict oui. ban écurie nga bëgg sa waajur laa ne. oui. lan moo la dugal ci Garga moom te moo ma dugal si Garga 2 si làmb rek waroon naa passé fii yëpp. waaw te man làmb dafa xaw a suux daal te ins bi garga daal laa mooy sama cible te xam naa ne foofu laa mën a jaar pour dem si kaw waaw moo tax ma jël garga de. làmb dafa xaw a ci yow wala làmb ci boppam moo xaw a suuxee ci Thiès. waaw làmb moo xaw a suuxee Thiès parce que boo dee xool avant tout sax damaa waroon a sant euh, kii Papa di Diakhaté. Hmm. waaw di ko sant parce que moom jàpp na si sama combat lu bari. Mhm. waaw boo tax ma dem Dakar sax saa yi dégg après bi ma demee Dakar sëñ Modou Niang maa ngi koy jaala waa këram gi yëpp. Mhm. moom moo ma dugal Ndakaaru moo tax waa dakaru xam ma. Mhm. waaw looloo tax ma nag ma ni làmb dafa suuka Thiès. parce que boo doy xool mbër euh, mbër yu mag yi duñ ñëw sax ba bëri Thiès ñun ñooy génn dem bëri Thiès. yaa dégg. Hmm. dem di bëri ji dakaar di ñëw di ñibbiwaat suñu gox. Hmm. looloo tax làmb mu xaw a suuxee Thiès daal. Hmm. làmb ñi ñu war a jàppale Thiès ñoo ñu jàppalewul. voilà. ñi leen war a jàppale cees ñoo leen jàppalewul mais euh, ban bés nga njëkk a jugee Thiès dem bëri ji dakaar am ci ndam. man 2009 euh, maag bébé Balla. bébé Balla bu Balla Gaye. waaw moom la. jëkk a dem Dakar. Mhm. waaw sa ñaata combat moo ëpp ambulance bëree ko Dakar am ci ndam. man boo dee xool am naa fa euh, six combats. Mhm. waaw deux défaites laa fa am. Mhm. trois défaites laa fa am. Garga 2 nekk mbër. non sept sept. Garga 2 Garga 2 nekk mbër moo xamante ne daa mën a bëre daa am fit daa mën a xeex amateur yëpp. nangul ko mën bëreem mhm. nga jël ko ma gis ni combat bi dafa mel ni adversaire bi dayo bi nga ko war a jox ci cër joxoo ko ko lu war a loolu non dama koo xam rek Garga loolu nga wax noonu du xeex du bëre moom Garga 2 xeex du bëre mais daf ko mën déggoo li ma la wax ku lu fàttali na ngi nii damaa toj sama jamono man man gisuma la mu def man mhm. li ma def laa gis moo tax man la du xeex du bëri sa préparation sa combat yaa Garga ban combat la lay fàttali sa carrière ndeysaan si yàlla si Omar mm-hmm. Diko mm-hmm. sama premier combat la may fàttali li mm-hmm. ma daan wax li ma daan teg lépp dama kaa gis si combat bii di ko jaal ay mbokkam nag daf ma manqué trop mais amul benn problème xëy na yàlla suñu borom dina def li gën fi man waaw euh, ñu gis nga dëkk Thiès. Mhm. jóge Thiès ñëw ba mbuur di fi préparer. Mhm. diirant bi ñaata weer nga def mbuur ak lan moo war a jóge Thiès ñëw mbuur def naa fi quatre mois. Hmm. waaw. dëdd lépp ndax combat bi doom dem naa ba si di si dégg sax ay wax yu sew yooyu mais amul solo daal. li am solo hmm. mooy li yi. Hmm. yàggatul essence yi dégg. Hmm. li ñu waroon def yëpp def nañ ko. le jour ji la ñuy xaar rek combat bi ñëw. Hmm. ñu defal ko lu ñu koy defal. yóbbu hmm. ko ay mboqam daal. Garga 2 gëm na ni moo la dàq bëre yow da ngay nangu lool. man dama gëm ni maa ko dàq bëre. maa ko dàq bëre mboq. xam nga lool la waxoon. maa ko dàq bëre maa ko ëppi mboq. bu ngeen wuree ci bëre. daw jàppante jargandalu yéen ñaar. kon combat bi du yàgg. combat bi. Hmm. kon du yàgg déedéet. amateuru làmb yëpp nangu nañ ni yéen ñaar du ngeen ay xeexkat. Hmm. ci wàllub xeex est-ce ngeen taxaw samp jaaga wala wala xeex. dina xeex dina bëri. da koy xeexloo yow mooy laaj. yow da nga koy xeexloo. day xeex day bëri. day xeex day bëri bu bu neexee yàlla suñu borom. déggoo li ma la wax combat bi lu mu laaj du ne dama koy def. mais poulain roi des arènes ngay waxal de. déggoo li ma la wax. bo man double roi des arènes laa yor fii muy Bombardier. <laughs> problème am na de. waaw jeex moo koy préparé. Bombardier moo may préparé. kan moo mujj si kaw Modou Lo Bombardier. waaw. jeex na. kon loolu nga koy def. lu métti loolu laa koy def ni defoon. Modou Lo loolu laa koy def. non ambulance bàyyi li ngay def waaye Garga 2 ak ni mu nekkee ndaanaan ci làmb maa ko gën a doon ndaanaan fopp ay ndaanaan rek laay dajal ay ndaanaan rek laay kontaagal ay jamteeri bu kayaar di di di nuyuwaale bas bas mi nga xam ne moo ma dalal fii bas bu kayaar hmm. xiifu ma maruma ndax moom hmm. kooku de leen rek laa ko mën a indil muy ndam may kooku si kàttanu yàlla hmm. waaw lan ngay wax waa Thiès mbour gi ngay préparé ci mobilisation le 11 lan lañ mëna xaar ci ambulance. la wax xam nga ay cars mais mobilisés. gars dañu mobiliser. way douze cars ak ay dama ko doon Dakar mais bi dafa jéggi dayo ibama dama fa daan dem samay supporters ci biti te li ma daan dugal stade gis nga ni ma daan dugal stade te samay supporter si bit lañ daan ne. Garga de gëm na ni mo la ëpp moo la ëpp. non non supporter. mënu ma ëpp supporter parce que nee yow à domicile ngay ñëw. parce que li ma la waaye man dama man ci ess ak mën Dakar lay boole yamalé man gone yi teekaa la yor ci ess wa man ci ess wa je suis fier de Thiès waa. fi ma dëkk la la wax déggoo li ma la wax dama leena gëm mom neena na Fall la dëkk de Ndande lay way ma dem ba Ndande Fall xamna fim fi fep dem na ba Ndande Fall sama xarit fofu di fa togg di muy muy ngénte ma koy togalé kon xamna fim fi mu dëkk. Ah. waaw xamna fim fi bu baax. Garga de mom neen daf ma xam ma ko gëna xam fop Garga de lan la gëna mëne. kan no lol jaru wax. lan lan lan nga xamni moy mooy taatu walisam bu ko fa tege rek jeexal. déggoo li ma wax lol jaru wax. moom xam na la moom daal daa yàgg si yoon bi. Ah. na def ko rek mais ma jàll. pied gauche lay jiital te day aj garde bi ci kaw. looloo dàq sax. ban pied ngay jiital. kan man. Ah. man ñaar yëpp la gauche droite non am na bu gën a doon sa fort. non non man gauche droite la. Pambay bàyyi jàmbur mu wax. non waxul ma Pambay waxul de ah. man gauche droite laa man tànk bu ma neex laay teg. boo xoolee samay combat nga xaw tànk bu ma neex laay teg. mais Garga 2 ñëpp xam nañ dafa am rapidité bu nekk ci moom dafa gaaw trop. waa na ñëw. bu ñëwee laa soxla na ñëw. bu ñëwee attaquant la may attaquant ñaari attaquant bu ñu dajee nu muy def faaw bal dugg. bu ñëwee. faaw bal dugg. day góoma de. Mhm. te bu neex neexee yàlla suñu boroom dama koy daan si kàttanu yàlla. du nuyu waa Kër maa laaj nag. mu ngi lay xool moom Garga wax ko wax ko mu dégg la. Garga fii doo fi am dara. fii nga jaar fii du xooyam xooyam yi fii dafa tàng jër mburu mi loolu laa bëgg nga xam ko. bu ñëwee. dama koy daan si kattanu yàlla suñu borom. dama lay daan nee nga yaa ma ëppi mboq ko ëppi mboq mënoo koo jëw déedéet dama bëgg nga régler ànd ak dal bëri bi lu mu laaj du ne dinaa ko def si kàttanu yàlla suñu boroom di nuyu waa Kër laaj bu baax di nuyu sëñ Omar Njegéen boobu ba léegi sama combat bi chaque jour dama koy woo téléphone mu ngi siy jàpp bu baax. di nuyu kullu Baye Fall yi nga xam ni moo nekk Thiès Baye Fall man su ma amee combat. Mhm. li gën a danger su ma amee combat ñëppay bàyyi seen yite ñëpp man damaa xamul lan laa defal waa Thiès. Hmm. billaahi wallaahi moo tax man la combat bi dina gis lu mësta gis moom. si mobilisation ak si samay mbokk ak si fépp samay am di jàmbeek ñëpp. Mhm. waaw. combat bi yéen ñaar yaa Garga kan moo ci laaj sa morom dañ la ko proposé wala yow yaa ko laaj. làmb moo déggoo li ma la moom a ma sax choisir. moom Garga parce que Garga 2 dafa yàgg si saako bi. kon daa jàpp ni da ngaa nooy. man maa nekkoon si yoon bi. Uh-huh. bu fekkee dafa jàpp ni kii pataas la. waaw wala kii weñ la. Uh-huh. ndax na boppam man fii weñ bu wow koŋŋ moo fi ne. fii du neexu ñebe kenn de. Hmm. kon moom moo la laaj. moo ma laaj. lan la la yebee ba laaj la. dinañ ko xam bañ dugg si combat bi ba jour yi ñëw. Hmm. Mhm. combat bi lan ngay wax waa jàmbaar production yi nga xamante ne ñoom ñoo ko tëgg. waa jàmbaar dama leen sant di leen gërëm rek. combat yi nga xam ne mooy gën a danger yëpp ñun ñoo koy génnee. Hmm. waaw parce que ñu ngi jàppale xale yi. fi ñu teg seen tànk nee buñ ko teggi nañ ñu nañ ñu gën a jàppale rek ñun xale yi. yaakaaru am na ñoo xam ne yaakaaru leen lu dul làmb te làmb damaa bëgg ñu xam ni làmb day dundal sport daal. Hmm. parce que nit ñu bari ñu ngi daan def naan agressé wala lii mais làmb bi nga xamee ne làmb gaa yi làmb jël nañ ko bu sérieux bu baax déggatoo agressé yu bari. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. looloo tax na jàmbaar dugg si pour mën a jàppale booy yi. waaw. kon pare nga boo génnee ci combat bi jàmbaar joxaat la beneen déggoo ma bu may génn su kàttan yàlla laa la wax su may génn. na ma jox avance foofu dama koy daan si kàttanu yàlla laa la wax te man dama gëm damay am ndam. Hmm. Uh-huh. Bombardier lan la lay wax parce que gis naa bi ngeen duggee yéen ñaar affilité bi ngeen am nga naan ko papa. mu kontaan mu naan forme bi moom macha allah. déggoo li ma la wax kooku sama père la. lu mu def si man rek xam na ko. moo tax bi mu dugg see xam na ni carrément doomam nelawul maa ngi liggéey mais daf may gën a yokk courage. Mm-hmm. waaw ku jël roi des arènes deux fois. Mm-hmm. kon kooku boo demee si tànkam war nga ko mën a tarbiwu. Mm-hmm. waaw. combat bi mu tax euh, bi nga ñëwee quatre mois yi nga fi def xaw ma trois mois yi ñaata séance ngay entraîné par jour. man mm. ñett rek laay entraîné. ñett. boo xëyee looy def. quatre laa daan def sax dañ ma wàññil benn bi. Hmm. waaw. quatre yi nga doon def lan ak lan la. quatre séance xaj na ci journée bi. bañaa xaj. quatre séances à am def su ma xëyee quatre heures damay matinaalu su ma matinaalu su ma ñëwee damay ba so ba ba ma jug neuf heures ñëw fii sama kus mu ngi nii mu may bëgg a rey si salbi, di ma tañ tànc yu métti waaw hmm. su ngoon jotee ma dem contact yi ma contacté ba ba ba nga xam ne contact naa bu guddi gi guddi gi damay jug foo jël jël gants ñu dem hmm. nag ba tere ma loolu. ñu ma del def trois rek. Hmm. waaw léegi trois yi yéen ak yan la. trois yi damay kon rek damay mattinaalu su ma xëyee ah. mattinaalu. Hmm. Euh, suba gi ma ñëwaat saal. ngoon ma dem contact. waaw su combat bi gënee jege si la ak lan ngay def. non bu combat daanaka presque ñu ngi ci dernier réglage yi de. le onze juin yàggatul dañuy wàññi rek dañuy wàññi benn bi rek. ñuy mattinaalu dem contact. mattinaalu dem contact. waaw def rek. macha allah lan ngay wax waa Thiès ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg ambulance di ko supporter. di woo sama mbokki mbëri Thiès yëpp surtout suñu waa écrit mhm. ay laay goote ay boy jaxaw man gis naa leen nu ñuy nu ñuy nu daal ni ma yéene daal. Mhm. te xoolal maa leen gën a yéene fopp. parce que di wax cent pour cent bi ah fi ñu teg seen loxo buñ ko teggee. ñu ne cent pour cent cent pour cent. garaawul. di woo Moodu Anta Saafi Dieng mhm. Saafi mi nga xam moom lañ teg si bopp bi cent pour cent bi ne kon booy gaa yëpp boole leen ay Pambay saa ngi dégg sunu waa écrit ay ñoom Adija saa ngi dégg ay Alaaji Gaynde ah ay cere càq su ma liimee daal dama jum sunu écrit sunu waa écrit yëpp yëpp yëpp yëpp ba si staff bi waaw ba si ñoom staff bi yëpp di wax nag président Sélé fi nga daan jàpp di ko jàpp ba mu nooy gën faa dolloo sob loxo mu gën a nooyaat waaw hmm. di woo waa Thiès gi yëpp ñu jàpp si combat bi. président la fi mu jàpp ci lan la ci ñaan wala ci xaalis. non loolu man ak moom la. <laughs> sunu président la sunu président écrit la. Ah. <laughs> waaw ah. fépp lay jàpp foo foog ni fu du fa jàpp rek mu ngi fay jàpp. waaw. Hmm. di wax nag sunu di du nuyu sama jabar. Hmm. ni yàgg na mais mu ngi muñal. boobu léegi. billaay wallaahi. kon 4 moo yëpp da ngaa bàyyi soxna si Thiès ne fi. loolu day dara. lamb dama bëgg dara def dara. lamb toll na foofu. bu baax bu baax di nuyu sama seex yi. Mhm. waaw Ousseynou ak Assane. Mhm. ay Firia. Mhm. di nuyu seen euh, sama sama sama yaay. di nuyu Momar Ousseynou. sama papa. sunu waa kër sunu waa mbokk yëpp. sama doom bàyyi surtout ay ñoom laay mbay ñoom ñëpp ñu si kaw ak waaw ay pambay yooyu. Hmm. maa lay jaajëfal bu baax. am benn problème. Hmm. <laughs> xaaral ma doon sama coach nga wax moom. jaajëf coach. waaw ziar naa la. noo gisee état de forme champion. waaw état de forme saa waay moom fu mu toll nii liggéey nañ côté yëpp. Hmm. côté fi a ñëw bi mu ñëwee lan lañ liggéey liggéey muy volume. on a commencé par travailler le volume. ndax dafa soxla woon volume vu que adversaire am dafa nit koo xam ne dafa am gabarit. léegi ci biir volume boobu dañoo travailler wàllu mobilité bi pour moom poids bañ koo sonal. Mm-hmm. malgré ne jël na volume foog mu am mobilité ba nga xam ne dina mën a antan yaramam en même temps dina jël volume bu baax mm-hmm. loolu lañ gën a travailler mm-hmm. travailler nañ volume mobilité ak agilité pour mu mën a bouger normal ak vitesse surtout vitesse def nañ tamit vitesse fu mu toll nii moo taxoon ñuy doon def trois quatre séances d' entraînement la ñu commencé woon ma xam ne quatre séances d' entraînement ak volume bi mu soxla arrangé ko woon moo taxoon ñu wàññi ko def ko trois séances d' entraînement. Mhm. léegi après séance trois séances d' entraînement yi fu mu toll nii li ñu soxla woon ci volume daanaka am nañ ko. Mhm. mën nañ wax. Mhm. ak agilité bi macha allah fu mu tol nii waxatuñ ko. force bi moom fu mu toll nii comme li mu wax rek vers fin séance d' entraînement dañuy wàññi bàyyi ko yaram bi gën a dallu pour combat bu ñëwee rek. incha allah ndax fu mu toll nii ci finition yi rek lañ toll quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo mais ci volume bi bu ngeen koy yokkal volume. Mm-hmm. selon ko adversaire bi ngeen di basé wu pour yokkal ko volume wala moom day yokk ci ci taayam. non selon volume bi niñ koy yokkee dañuy njëkk a xool. selon dañuy xool selon moom yaramam lan la soxla ci volume. par rapport ak taayam par rapport ak poids loolu la ñuy a calculer. bu ñu calculer loolu xool ba xam par rapport ak adversaire am ndax bu ak poids kii par rapport ak taayam dañuy njëkk a xool volume bi nga xam ne moom la war a mën a jël maximum par hmm. rapport ak taayam hmm. bu fekkee jël na volume maximum boobu ak adversaire méngoowul hmm. boobaa dinañ jël benn marge boo xam ne dañuy gën a yokkaat mën nañ yokkaat ba ay vingt parfois vingt kilos parfois mën nañ yokk ba ay vingt cinq kilos sax parfois trente kilos ça dépend rek ci adversaire bi en fonction moom tamit lu mu ci lu mu ci séentu mais tamit comme li nga li ma la waxoon sànq ci dé bi bi ñu jël volume dañuy passé wu dañuy basé wu ci foog mu mën a bouger ndax bu fekkee dafa jël volume bu defee contact tuuti mu sonn arrangé wu ko. Hmm. ndax kom bi ñun dañoo pare comme ni mu la ko waxee dañoo pare pour mu metti fépp. Hmm. waaw du yomb dañuy metti fépp pare nañ fépp. incha allah xorob dina metti fépp kay. macha allah jaajëf maa lay jaajëfal baax ko. waaw damay nuyuwaat rek xam rek di waxaat waa Thiès waaw di waxaat waa Thiès nañ gën a jàpp rek waaw di woo sama mag Birame Souleye biram si Souleye Diop waaw ñu gën a jàpp si affaire yi rek waaw ay Yankhoba Diattara ak yooyu yëpp bépp autorité boo dégg Thiès rek waaw bépp autorité boo dégg Thiès rek na ñëw jàpp si combat bi parce que ku lim juum échange yi dégg ma surtout suñu waa koñ suñu waa koñ moom dama leen di wax man moom li ma leen li ma li ma leen li ma leen li ma defee si koñ bi foofu daal ni ma leen di déranger maa ngi leen di jégalu bu wér te xam ne làmb rek la. waaw suñu booy koñ yi waa teekaay ni leen dof bi mu ngi ñëw nañu préparé bu baax surtout nag li may gën a waxaat rek di sant euh, sama waa yi nga xam ni moom Bas moo yor sama lépp fii moom lay gën a santaat Bas bu Kayar di sant jamteeri yàlla xam na ko barki Serigne Touba parce que ñooñu aw ma seen fay daal parce que doo doo yow boo nekkee fii dans nga nekk fii quatre mois ñu yor la quatre mois fii xam nga loolu métti na lekk naan est yi dégg moo tax man ndam rek laa ko mën a indil billaay wallaay ak sama gaay yi nga xam ne ñoom ñoo fa ne si waa kër ga yëpp su ma juum ñoom ñëpp laa la wax te incha allah si kàttanu yàlla dinaa ko indil ndam ndam rek lay jooy dinaa ko indi si kàttanu yàlla di wax jamteer yàlla na am ndam moom tamit voilà ak Tony Junior ñu ñu billaahi Thank